سيدنا النبي كوّل nii. cant rek a moo tax muy wax. waaye wax ji mat na ba noppi. am nag loo xam ne na fi. am xam ne lii xew na fi. bu fi xewee xewee nag. ñaari parti ci ñaari parti la xewe. benn bi. benn bi. mbokk Aly Ngouille. suñu mbokk Aly Ngouille. fi état bi. dafa wax ba tudd Tiwaawan. dafa wax ba tudd bi. tudd it nag hôpital bi. nee mu di ko wax nag ni ko. hôpital bi. tabax la. paasewul tabax. paasewul tabax. amul docteur. amul docteur. amul garab. nee ñu di la ñaan. ñu dimbali ñu ci loolu. ndax ministre de la santé. ndax ministre de la santé. li ko war. li ko yëpp mënu ko. fokk ngeen geestu ñu ci. hôpital bi ñu koy hôpital nag buñ koy tudd. dafay amee malade. dafay amee malade. ñu entré fa. mu am ay docteur yu qualifié. amu fi. garab guñ leen di jox. garab guñ leen di jox. amu fi. léegi. yenn nit ñi. yenn nit ñi. ñoo ñuy may matériel. yu ñu xor xoral. ci hôpital bi. nee mu yóbbante la loolu mu gàtt mais boo demee nga yóbbuwaale loolu <laughs>